waaw suñu daje tey bi li ko waral mooy dafa am dafa am xeex boo xam ne pouvoir bi fi nekk di pouvar en place Macky Sall ak waa këram ñu ngi koy xeex Touba tàmbalee ci ni ñuy tënk ni ñuy dajalee am réew mooy buñ koy buñ koy buñ koy bu ñuy samp ab état dañu recommander ñu viser le plus grand nombre mooy dañuy jël fi nit ñi gën a bare jël ci soxna yi jël ci. diine yu bokkul yi yëpp Macky Sall daf ko refusé jërul benn doomu Touba tey boo xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo nekk instance dirigeante bi jiite bi jiite Sénégal te loolu lim doon jëriñ Touba mooy suñ doom yi fi nekk am ay diplôme am ay am ay xam-xam ci ay métier doon nañ leen mën jël ci direction yooyu wala ci ministère yooyu yooyu yëpp Macky daf ko refusé ba tax na dëgg-dëgg nag mu metti ci jeunesse Touba. yamu ci amoon ay chef d' entreprise yoo xam ne ay doomu Touba lañ te yaakaar naa chef d' entreprise sax mën na nekk doomu Touba mais doomu Sénégal yëpp la mais mu mu mu étangre mu étranglé leen xooj leen nangu seen ay marché yi ñu gagné légalement ñu bloqué ko parce que quoi parce que ñoom bu ñu amee dañuy ñëw jàppale doomu Touba yi donc te waxoon naa leen neen barke sëñ Touba bi tax Touba duñ fi dégg famine te Touba amul usine Touba amul industrie parce que am na fervent mouride taalibe Serigne Touba chef d'entreprise yoo xam ne ñu ngi fiy investir donc loolu nag la Macky Sall am programme détruire loolu nag du yëfu Serigne bi du yëfu xalif doomu Touba yi ñooy taxaw faire face par rapport à cela je ne cite personne parce que mun naa tudd kenn suba ñu gis ko wala ñu obligé ko mu ñëwaat ne non bokkuma ci sëñ Modou limu mu wax likati laa mais vous avez récemment entendu les avocats de Ecotra Ecotra kan moo Ablaye Sylla mu nekk doomu Touba mu nekk société bi ëpp doole ci Sénégal société seule société qui paye 500 millions de francs fa ci ay doomu Sénégal société boo xam ne am na lu ëpp 1800 fournisseurs tout sénégalais société boo xam ne mu ngi employé 800 borom kër ak plus de cinq mille et quelque borom kër yoo xam ne fa la ñuy amee sutura dama manière indirecte ba waa Casamance sax. di dajaloo di manifester di xeex ak chinois yi ngir liggéeyu Abdoulaye Sylla biñ nangu ngir jox leen ko ma defe ne nag waa Casamance bu ñu demee bay xeexal loolu Touba gi mu dëkk tamit doomu Touba yi war na jël position ci loolu kon du pour Abdoulaye la kese mais tous les grands chefs d'entreprise mouride mën naa ci tudd vingt de yoo xam ne te dañu leen xoj duñu wax ñenn ñi sax ñemeetuñoo wane seen bokk guñ bokk ci Touba ñenn ñi sax ñemeetuñoo investir Touba dañuy def ci affaire jàng alxuraan ak yooyu ngir ragal Macky Sall dal ci seen kaw. loolu nag saa su fi Touba ci Sénégal la bokk Touba est une bonne partie du Sénégal Touba contient 17 pour cent de la population sénégalaise kon pourquoi Macky Sall parce qu'il ne gagne pas Touba parce que Touba ànduñu moom politiquement ni muy defee neexuñu ko daf leen war a xoj ci li ñëpp bokk loolu day dakk c'est ça qui explique notre rencontre d'aujourd'hui avec une décision ferme si Macky Sall persiste on va persister nous euh, nous aussi waxuñu ci turu benn sëriñ man. je suis j'étais le président du collectif des jeunes chefs religieux du Sénégal un mouvement reconnu par l'État je suis le coordonnateur de la confédération internationale des familles religieuses une coordination reconnue par l'État du Sénégal mais je parle en tant que fils de Touba mais aussi en tant que jeune te liggéeyu jeunes yi emploi jeunes yi nekk lu am solo kon je pense que su fekkee ne Macky Sall li mu doon wax dëgg la ci moom ne day promouvoir emploi des jeunes ba dina ci def 400 milliards kon du tëj les entreprises surtout entreprise bi presque bi gën a mag presque bi gën a mag ci Afrique bu noppi dëkk Sénégal te yàlla dogal ki ko moom nekk doomu doomu nekk doomu Touba kon doy na loolu dal en un mot c'est ça notre position d'aujourd'hui mu nekk nag un alerte nekk un avertissement Touba ci Sénégal la bokk te doyul rek boo ñëwee rek sëriñ bi lu baax la lay wax ndax moom lay wax ñëpp mais nag ay population fi dëkk di fay ay droit di jënd essence di ci fay ay taxes mu yor suñu xaalis du lum ñu may du lum ñu sarax lum ñu amel la kon nag su fekkee ne mën na investir Matam mën na investir Podor fenn fu mu jël fa 4 5 ministres 7 directeurs généraux daf ko war a jël Touba defu ko nañu bàyyee kon chef d'entreprise murid yi fi nekk di jàppale Touba mu maandu ci ñoom dem jox leen seen àq su ko deful nag ah tout est valable.